tey li tax ñu daje fii xam ngeen ne Interpol buñ ko créer ak léegi am na téeméeri sunu réew ci rôle bu rëy lay joué ci Interpol tey bu ngeen xoolee table bi ñu fi toog rek ngeen xam ne Interpol du police ko moom mais ñëppoo ko moom képp koo xam ne ki yaa ngi xeex pour en tout cas lu yàq réew ak lu koy gën a defar lu tax àdduna bi gën di gën di encore am sécurité sunu dëkk di gën a am sécurité moom wara a tey ñu fi toog ñëppoo ngi fi ci lu may gàttal daal Interpol lu am solo la pour FDS ñoo ko moom te service bu nekk am nga accès ci biir soo amee tamit képp kooy wër koo xam ne kii ku def dara ku ñuy wër donc ñoom dinañ ko dugal foo mënta jaar ci àdduna bi ñu ne la tiib jàpp yóbbu la ci service boobu doon la kii donc